Mbissane Faye maa ngi nekk élève ingénieur en quatrième année à l'école nationale supérieure de Dakar. ngeen tëral tey seen sitting bi décrété aussi euh, yi nga xam te ne ñoo teew fii di fàttali rek ni li waral teewaay bi tey lenn dong la c'est pour maanaam dañu bëgg wane suñu euh, euh, suñu lu maanaam suñu con ñu ci li nga xam te ne moom mooy situation socio-pédagogique bi nga xam te ne moo ne ci école bi actuellement suñu naqar voilà. ci li nga xam te ne maanaam mooy ci côté pédagogique boo seetloo ba ci biir depuis 2013 ENSA ak administration bi dañoo nekk ci dynamique dañu bëgg yokk li nga xam te ne moom mooy nombre d'étudiants yi te ñun xam nañu ne école bi bu ñu ko fiy teg amin en 2000 en 1980 dañu ko dimensionné woon pour 200 étudiants actuellement nombre bi yokku na administration lenn rek la def muy indi ay conteneurs dugal fa ay ay conteneurs pour man nekkul ay nit ñoo fa war a nekk ay conteneurs pour ay bagages la te bu ñu ko fi andi dañu waxoon lu leer dañu newoon ni loolu ñoon ñi fi andi nekkul li nga xam ni day doon li sax maanaam dañ ko fi andi ngir ak nëgandiku pour mën a xaar. li nga xam te ne mooy as tuut pour man fi tabax ay bâtiment te depuis loolu seetlu nañu ni bâtiment tabaxuñ ko fi ñoom ñu ngi ci bëgg a yokk nombre bi ñun nag xam nañu ni formation ingénieur dafa am li mu laaj dafa laaj qualité dafa laaj sérieux dafa laaj volume horaire yi ñu di ko respecté te fi mu nekk nii li nga xam xamante ni mooy cours yi ni ñu leen war a joxe des na am na professeur yi nga xamante ni volume horaire yi respecté tuñu ko dem nañu ci ba di xaaj classe yi parce que nee nañ mënatuñu wuyu li nga xamante ni moom question yi étudiants yi posé. Euh, nombre pléthorique bi quoi. nombre pléthorique pour wane ni lépp rek ni dafa laaj ñu xalaataat ci gën ci teyaat pour man nekkul ni actuellement pays bi dafa soxla ay ingénieurs tax dañu war a njëkkante yokk dafa am nu ñu war a yokkee yokk boo gis dafa am nu muy demee waxuñu nga yokk rek pour bàyyi ci marché produit bi nga xam te ne ñu pare di chômer da ngay yokk yokk bi nga xam te ne dafa tegu ci yoon dafa tegu ci temps ak li nga xam te ne moom la population bi soxla. leeralal ingénieurs yi jëngu ci wàllu mbay mi. ma ne da leeral ne ay ingénieurs yu yëngu ci wàllu mbay mi la. voilà euh, di fàttali ni ñun ñooy maanaam étudiants yi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ci école nationale supérieure d'agriculture étudiants yi nga xam te ni ñooy yëngu ci wàllu mbay mi ñi ñuy formé te ñu nekk ingénieurs yi ñuy formé fii ci NDR notamment ENSA te mu nekk école ba mu te ni mu ngi formé étudiants yi pour bac plus 5 di fàttali rek ni li li ñu li ñu wax ji kàddu gi benn la lu ñu fi tax a teew tey lan la ñun amicale étudiants élèves ingénieurs ENSA dañu ne duñu dugg ci classe yi tant que en fait ministre bi xamante ni jéem nañu jokkoo ak moom li nga xam te ne weesu na ñaar yoon ba ba léegi wuyuñu enseignement supérieur wax nañu ci ak recteur wax nañu suñu ay directeur mais ba ba léegi nanguwuñu jox tontu bu leer lenn rek la dañu gëmm tëx gumba lu bëgg rek yokk nombre bi ñoom loolu rek la ñu gis seen plan stratégique loolu rek la te ñëpp a xam nañu ne en fait affaire bi nekkul pour yokk yokk dafa am nu muy demee li nga xamante ni rek moom la ñu bëgg lenn rek la mooy ni ñu fi def ba tabax fi ay salle de classe pour mën a accompagner nombre bi la ñu bëggee depuis 1980 tabaxuñu fi benn bâtiment dañu bëgg ñu tabax bâtiment bi nga xam te ne c'est digne de son non pour mën a accueillir élèves ingénieurs yi nga xam te ñoom ñooy ñëw at yi ñëw loolu la ñu bëgg ñaareel bi mooy boo seetloo ba ci biir bus bi nga xam te ne moom la ñu yor fii nii ci école bi bus bi dafa nekk am panne te bus bi mënul sax jël lu ëpp cinquante étudiants pour seen sortie pédagogique pour suñu sortie pédagogique sortie pédagogique yi dañu mujj di xat-xatlu ci biir bus yi di wut ay chaise ay charge ay chaise di ko surcharge étudiants xam nañ ñëpp xam nañ ni loolu nekk li nga xam ni tey ji lu wóor la parce que tey ji ku fi ñëw école bi moo yor sa kaaraange waaye ñu di la dugal ci bus di la dugal ci ay chaise ngay dem ay sortie di dem fii ba ay euh, au sud du pays loolu ñëpp xam nañ ni teguwul ci yoon donc lenn rek la ñun bëgg nañu jàng bu ñu bëggul woon a jàng du ñu décréter deux jours kon dañuy def grève illimité waaye nag dafa am ci lu muy tegu lenn rek la su fekkee li nga xam te ne mooy li ñuy ñaxtu nanguwuñu ko def ñun bañuñu ci ba chaque semaine dañuy def 48 pour wan leen ñun boobu léegi bëgg nañu dugg ci classe jàng su fekkee nag boobu ba léegi négandiku bi yàgg na ñu wax ak ñun bu laajee ñu tëj école bi ñibbi suñu ko daan ko def